ay benn tàkk-tàkk du am ñun ñëpp ñu bokk bokkaat nday bokk ak bay nit du ñàkk péete péete yi mënta ñàkk waaye péeteel ci ki nga féeteel waaye bul doyadal kenn bul xas kenn bul saaga kenn kenn ku ci nekk téyal sa làmmiñu bopp dafa am lu ma mës a dal ci benn xale xale bi dama ko yor ñaari xale yu ma yor kenn ki saaga bàyyi kenn ci xale bi ñu saaga mer bëgg a xeex bi ñu leen indee ci man ma ni xale bi ñu saaga waaw yow kii yow la saaga mu ne dafa saaga sama baay mu ne ma ma ne ko kon saagawu la sa baay la saaga ana sa baay mu ne ma ma nga ci sëg ya tëdd xale bi ko saaga woon tiit dem nettali papaam li mu li ma wax papa ñi ñëw ni ma waaw sëñ bi li nga wax xale bi nag ma ne ko waaw na woo xale bi mu woo xale bi ma ne ko waaw kii lu la wax mu ne dafa saaga sama baay ma ni ko yow koo saaga mu ne baayam ma ne ko kon lu ci seer mun ma ak bi noonu nga koy gisee ma ni ko baayam la saaga baayam nga ci àllaaxira tëdd na bàyyi ban dem ci baayam saagawul xale bi baayam la saaga moo di dal ci kaw mag ñi kii dal ci kaw mag ñi nañ ko bàyyi moog mag ñi la Abdul Aziz tarkul jawaabi ala safihi jawaabun maa ngi sant suñu doom ji bu baax nag waaye am na loo xam ne kenn ko wax nitu yàlla kenn ko dal ci kawam ba muy judd yëgoo ba muy defaru yëgoo ba muy wax yëgoo kon lu ci sayoon te kenn ku nekk nag am na loo xam noppee xew rek te noppi moo war a wuy wéy defee nag kenn ku nekk téyal sa bopp ci deru gor yi bàyyi leen ayibalante yi ñuy ayibal bu leen kenn taxaw ayibal kenn Sénégal dañ daan wax ni Sénégal c'est le pays te mais maintenant te ah viol violence moo am moo am nga defee nag waxtaan wi yëpp waxtaan la rek foo dem foo dem fekk ko waaye Sénégal daal dañu bëgg mu teguwaat ci yoon te yéen xale yi yéen a ci mën a téye bu ngeen ci téye dogu ci wut fu ngeen tuure seen ñaq tey waxtaane seen bopp di waxtaane seen diine respecté seen waajur seen lépp baax yitte xam-xam bi lislaam am amul fenn ndax bu dul woon ak yàlla dara du am bu defee nag il faut que ñu dellu siwaat